yéene président Macky Sall gën a jàppale ndaw ñi nag ak jigéen ñi taxaw nag dëgëral nag dialogue national bi nga xamante ne nii jàpp na ne njariñ ca biir en tout bi xamal nañu ne démb Amadou Ba moom wax na juróom-ñaari dëggam nag responsable APR yi te leen di xamal li bu yeboo seen xel dal ci man ndax yaakaar gi président Macky am ci man dinaa ko mottali enquête yéenekaay ne biir Benno Bokk Yaakaar kay mu ngi bëgg a explosé ñi ci diwaanu Jolof ñi ca Njàmbur ñi ca Fulaadu yéenekaay bi dem sax bay laajte ne est-ce que cadre yi jógee ko ci benn bokk yaakaar du ñu indil jafe-jafe nag Amadou Ba yenn ci ay zone pour mu gañe ko dana metti ci moom lool waaye bu ñu sukkandikoo ci El Hadji Demba Sow di responsable APR mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi de bëri na ci ay candidat yu fàqee ca benn bokk yaakaar seen biir kër sax mënuñ koo gañe waxuma laa quartier ba ñu nekk kon nag ci sabotage la ñu processus bokk ci élection yi yomb na yombaay goo xamante ni lim nga ëpp na téeméeri candidat yenn ci ay candidat mais nañuy wut ay buzz wut ci ay tur wala bokk jege nguur ëllëg la nekk ci ginnaaw ñoom candidat yi yéenekaay bi taxaw na ke seetlu te ñu xamal ne am na ñoo xam ne boutique ba ñu jàkkaarlool seen kër laa la wax borom boutique ba sax mënuñ koo convaincre pour am signature kon ne dañuy jëli ji ay fiche de parrainage laa la wax dañuy nax seen bopp parrainage bi laa la wax candidat yaa ngi ca terrain ba waaye nag seetluwuñ na ay piège mu ca biir am ñu jàppee parrainage bi ay fo ñenn ñi moom di gonfler seen i chiffres bi ne li mu fiche yi ñuy retiré laa la wax ci direction des élections toll na ci 206 kenn ci candidat yi di Anta Babacar Ngom yéenekaay bi toog waxtaan ak moom muy xamle ne ñi may oowee nag fii à nañu arrêté ni mel ndax tamit du fii à papa jeune bu ñëw source aané keneen ku nekk candidat kay ci biir réew mi mu di Amadou Ba te sax président Macky Sall mu ngi gisaane nag ci chiffre bi nga xamante ni moom la tombeel ci fiche de collecte de parrainage bi muy chiffre bi nga xam ne bu ñu sukkandikoo ci président Macky Sall nee ci ngisaan neem chiffre bu baax la ndax 1 lay tombeel plus 1 plus 7 mu jox la 9 am na tur bu mu tombeel nag ci turu yàlla yi di tur bu am doole bu leen mën a may chance ñu gagné élection yi fekk jamono jooju kaw Ousmane Sonko jamono ji nga xamante ni recours yaa ngi mel ne tulleeg laa la wax ñeel tas gi ñu tas partem bi ak lànk gi ñu lànk ne du jot ci fiche de parrainage bi lii tax na ni ki démb nag def nañ benn recours boo xam ne agence judiciaire de l'état nag signalé nañ ko ne Ousmane Sonko dañu ko tere ngir mu bokk ci élection présidentielle yi di ñëw xañ ko fiche de parrainage bi te yëngatu concernant nag situation bu président Ousmane Sonko jëm libération yéeni kaay na Juan Branco di li mu gëm mooy Sonko ak Pastef dañuy bokk ci élection yi wala bokk élection présidentielle du am ci réew mi fekk jamono jooju xeex bu métti am ci duwaanu jokkul bi xamal nañu ne am na benn gaal gu fa teeri foofu ci duwaanu jokkul ñoom xale yi ñu ngi déparé woon ci duwaanu Rufisque waaye boroom gaal gi ci boppam nee nañ yooyu yaay dafa sàcc moteuru gaal gi lii moo indi woon affrontement yi am na sax ku ci ñàkk bakkanam yéeni kaay bi dañu xamal ni ndaw ñi nag ba léegi ñu ngi dem ci barsak barsak gi ndax démb démb marine nationale bi arrêté benn gaal goo xam ndaw a ci nekk ak juróom fukk ak te ci diwaanu Espagne am na ci ñaari embarcation yoo xamante ni yegg nañu fa 313 passagers ñoo fa nekkoon bokk na ci juróom-ñaari jigéen ak benn xale bu tuuti yéenekaay bi dañu nettali tam mbir bu doy waar ci diwaanu Mbaawu extension benn soxna daal moo doon dawal otoom di arrière ndekete mu ngi jaar ci doomam boo xamante ni amul lu dul ñaari at nii la xale bi jaaree ñàkk ba kanam tet tet yàlla baax na ñu yéen ak jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm incha allah